li ñu fi dajale tey rek mooy waxtaanu ñaareel bi nga xam ne moom la comité d'organisation bi taxawal ngir waajale ko màggal gi tey jii ñu tànn benn tomb ci tomb yi nga xam ne yu yu jàpp ne yu am solo la ñu war koo waxtaanee ci jamono yu nekk waaye jamono rawatina ci jamono yi ñu nekk ndax jamono ju nekk am na lu gën a jàmp am na lu gën a yeey ñu waxtaanee ko ci leneen jamono yi ñu toll nag ku ne xam na ne jamonoy maddiya la jamonoy matérialisme la suñ ca demee léeg ñu dem ba mujj nit ñi dañuy mel ni dañuy la lab ci géeju matériel loolu rek mooy doon seen itte mooy doon seen lépp léeg nag mu mel ni dañoo màmm nag doon na jaadu nag bu ñu demee ba yàgg nag ñu téyewaat leen nag daal leen di wàññi ñu xaw a taxaw nag seetluwaat seen bopp te loolu mooy la koy def mooy eh, defaraat xol yi defaraat xol yi ba nga xam ne Euh, maddi gu metti gi nga xam ne moo ci nekk dana xaw a woyof tuuti te loolu li ko man mooy tasawuf moo man loolu a tarbiya suufiya a tarbiya ruuxiya moo mooy li nga xam ne moo man loolu kon moo tax ci biir tasawuf boobu ñu tànn lu ci am solo lool benn tomb bu am solo ci a ba mel ni sax dañuy wax ne buñ ne tasawuf rek xel yëpp ci loolu la ñuy dem muy al wird muy wirda wirdu nga xam ne moom la ñëpp miin ñuy yor suñuy kurus di ko ci def wird ci boppam ci biir tasawuf mu am ci solo lool ndax tasawuf bokk na ci li ko gën a amal solo mooy azzikr mooy tudd yàlla te wird ci xeeti tudd yàlla yi la bokk yi gën a màgg te tudd yàlla comme ni ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala an waxee ci Masaalikul Jinaan murit bi amul dara lu lu muy def lu mu war a gën a baril ci zikr ab mutasawif li muy def wala li muy wax li ci gën a bari war naa doon zikr amma dawaamu zikri فهو أكبر من كل ما كان المريد يكثر سيتوبا نينا لب لو أب مريد دي باريل لو مي وح لم تجنب ورا باريل موي أذكر مو لا تجنب ورا باريل ويرد نك تبير ذكر لبكو بكو تي لي تي أم صلاة كون توم بوبو موم لا نيو تان تاي غير وحتاني كو غير نيت ني خام لان موي ويرد waye buñ ko xamee ban solo la am waye buñ xamee ban solo la am yan meññat wala yan njariñ lay jariñ ki nga xam ne koy def loolu lañ bëgg waxtaanee tey jii euh, ci euh, guddi gii te ñi nga xam ne ñoo ko séq war ñu koo waxal war ñu cee waxtaanal di ñaari mbokk di ñaari ndaw yu ñu am yaakaar ci ñoom lool mawdo bi nga xam ne wala tomb bi ñuy waxtaanee di tomb bu leen itteel lool li ñuy nekk nekk ay ndaw ñu gëstu ci gëstu yoo xam ne mag ñi sax soxla nañ ko wax mu seen moroomi ndaw yi muy kii ci jëkk mooy sëriñ euh, Ahmadou Mbakke ibnu cheikh mouhamadou mourtada ibnu cheikh cheikh fati fall ibnu cheikh ibrahim sëñ ahmadou mbàkke mi ci sama ndeyjoor di doomi sëñ mourtada mbàkke mi ñëpp xamoon ci xam-xam ak maandu di doomi sëriñ cheikh fati fall di doomi maam cheikh ibrahima radiallahu taala anhu mu bokk ci eh, waa daaru musti baayam ñëpp xamoon ko ci jàng ak jàngale ak tasaare jàngale di sëriñ mourtada moomu mu juddoo daaru musti feeñee fa jànge fa alxuraan ci jàngukaay yi nga xam ne moom lañ faral di jaar di ci jàng alxuraan jàngee fa xam-xam tam ci loxol sëriñ Abibu Mbàkke radiallahu taala anhu mottule ci nijaayam ji nga xam ne mooy sëriñ Abdourahman yàlla ko yàlla sàmm foofu la jaar ba yàlla dénk ko ci xam-xam loo xam ne mi ci góor góorlu bu baax di ci gëstu gëstu yoo xam ne mboolem ñi topp wàllu gëstu ak xam-xam xam nañ ne ah, li mu ciy def ci at yim toll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 ñu tudde leen jataay bii muy daairatu rawdu riyaahin ak mbooleem ñi fi ne ñëpp ci ay sang ak ay kilifa ngir bañ a guddal damay dal di dugg rek ci waxtaan wi mawdu tem biñ ma joxoon mooy al wirdu fil fikri suufi man nag ma xalaatoon tudde ko ahamiyatul wirdi fii wala al wirdu fi tasawuf xëy na teqale gi dox ci diggante ñaari tur yooyu ñu bari nañ xam liñ ci jublu wird nag xam ngeen ni buñ bëggee tàmbalee ci baat bi tekki ko incha allah loolu lañuy jëkke loolu caa teg jëmmi wird bu ko mutasawifa yi waxee lan lañ ci jublu buñ jógee ci loolu wax ci zikru mi nga xam ne moom lañ ëpp luñ jublu ci wird buñ ko waxee doog a ñëw nag ci turuq yi seenu sosu ak niñ sosoo ak niñ fonke li wax wird ak it sanab niñ ko ci fonke ci wird woowu ak jeexit yi nga xam ne moom la wird di def loolu ñu daal ci tuuti ak ni ko bi wax ak ni mu ci soññee ak yi loolu lañ koy jeexale bu soobee yàlla xam ngeen ne baab bi duñ ci taxalu lu yàgg warada mi ngi jóge ci warada yaridu wirdan wa wurudan buñ ko waxee liñ ci jublu mooy warada al maa aw ala al maai mooy ashrafa alayhi mooy ñëw na ba ci ndox mi moo xam dugg na ci biir ndox mi wala dugg ci lu mel ne ci alxuraan dañ gis suñu borom wax ne walamma warada maa madiyan mu seydina Muusa xam ngeen ne duggul ci gën ndox ma mooy nga ñëw ba tiim bërëb bi loolu lañ jublu ci baatu wuruud wuruudul maa yi wala warada al maa ni ma ko waxee rek baatu wird nag buñ ko waxee ñu ngi ci jublu ab xaaj wala dog ci alquran boo baaxoo jàng wala ab xaaj ci guddi gi goo xam da nga koy julli waxtu wu ne wala mbooloom ay ay njanaaw dañ ko wax wir jublu leen ci wala ab armée wala ab xaaj ci ndox wala nit ñoo xam ne dañoo dem di wuti ndox wala siburu dañ ko wax jublu ci sibru wala bis bu bo yello sibru yépp da la ko firi ci luxal arabiya waaye nag mu tas sawifa yi muy tasawuf buñ ko ci waxee moom wér dëgg sëñ bi leeral na liñ ci jublu ñoom ñëpp wa tasawuf mooy li mu wax ne wa xadduhu inda dawi lifaada shay'un murattabun min al ibada fi waqtihi buñ ko waxee mooy ak jaamu yàlla rek goo xam dañ ko nose tànn ko moo xam lu mën na doon nga wutal ko waxtu di ko def ci waxtu wa saa yu waxtu wa jote loolu mooy gàttal bu wér Cheikh Ahmad Zarruq xam ngeen ne nii ko sëñ bi waxee mboolem borom xam xam-xami tasawuf yépp noonu lañ ko wax ne mooy mooy wér Cheikh Ahmad Zarruq day gis ci lenn ci téere bi muy wax ne wérdu buñ ko waxee mooy ma yatarattabu min al ibadati fi al awqat ونسلم فهم وحن ترتيب الأعمال بحسب الأوقات والأحوال كن موي جاب أو وقت ورتب دوك تيك جام يلا مو خم خدو جام يلا بوم مانا دون نغي كو تي ديف لول موي غاتلو گت بوين كو وخي نك نيوم لي لي ني جوبلو تي مثلا جولي تي گودي وقت وخمني ولا موي لي قيام الليل رك nga di ko ci guddi gi wut ay rakka wutal ko waxtu ci biir guddi gi moo xam waxtu bu mën a doon moo xam mujj guddi gi rawatina nga di ko ci julli loolu dañ ko jug dañ ko tuddee wird loolu sax borom xam-xame fiq yi xadis bi ci rot ci lañ sukkandiku ñoom borom xam-xame fiq yi ba wax ne dee si fay wird dañ koy fay bu la faatee mooy li yonte bi alayhi salaatu wax ne man naama an xisbihi أو عن شيء منه فقرأه فيما بعد فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل إمام مسلم وكن أقلي موخنا سفك اللي لن تب ورد وان تأمون لن تب أخونا دف تجام يلا دعنا نرو ولا مراونا بوقت وبيسو لولا من غا كوفي سايو نفيل دغ ba keroog julli tisbaar ak jappi giñ ko jàppe moom wird muy nisir nisir nazar ñaar yooyu moo tax mu fay di wax ni wird yi faaw dañ koy fay ci kep ko xamni ñew nga ñu jox la ñom seen kon julli dañ wax wird jublu ko ci ñom ñom mu tasawuf fay waaye jang alquran it dañ ko jappi wird ci seen bir yoy duma ci taxaw lu melni jangale xam-xam itam wala woote jëme ci yàlla loolu dañ ko jàppe wird itam man gis naa leetal boo xam ni sëriñ bu mag bi moo ko bind boroom Darou Mouhty wax ko ne ko boo jullee say farata ba noppi def rawaatib yi mooy yi ci topp ci ay naafila ak yëf sa wird wépp na doon di jàngale xam-xam nga xam ne ñoom léeg ab sëriñ ci ñoom jël jàngale xam-xam wala woote jëme ci yàlla defal ko benn télé bi wird nekk noonu am nañ sax wirdu wu xoromu mooy toog di wax may yi la yàlla defal wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ñuy wax yi leen yàlla defal jublu ko ci sant ak yi mu yokk bëgg yàlla ci seen xol am na ñoo xam ne ñu koy def ñoom ñoom rek seen diggante ak seen borom ñu tudde ko mun a jaar am na ñoo xam ne ñu koy def ak seenu njaboot toog seenu njaboot di leen wax ne man day ci ñi gën a war a sant yàlla ci laa bokk yàlla moomu bind def ma ma di jullit yëmul ci loolu mu def ma ma xam ko sama digganteeg moom itam ma di ko dunda jàng xam-xam te mënoon a bañ a jàng ak nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp mu di xéewal yoo xam ne war naa ci sant yàlla ñu di ko lim nga xam ne am na ñoo xam ne ñu toog seen njaboot bis bu ne am na ñoo xam ni buñ toogee di xéewlu nii lañuy la ñuy lim xéewal yi nga xam ne moo nekk ci njaboot bi ak yeneen ak yeneen Sëñ Tuubaa ci ngay déggee yi ko yàlla defal ni mu di ko wax ci biir xasida foofu lay dugg ci cadre boobu loolu aw wird la ci biir wirdu gaa yu baax yi mooy xéewali yàlla yi ñu di ko wax di ko rabtu bil mun'imi di ko lëkkale ak ki ko def xéewal yooyu muy suñu borom loolu day yokk ak bëgg yàlla fi ne ci xol waaye nag bu ñu waxee wird ci tariq turuq suuf suuf yi yépp lañ ci gën a jublu mooy ak tudd yàlla koo xam ni gu ñu wutal waxtu la tànn ko itam muy ay ak ay istigfaar maanaam ñett yi borom borom xam-xam tasawuf yëpp dañuy wax ne wird yëpp ma nga ca mooy la ca ëpp solo mooy istigfaar jéggulu yàlla yàlla boo ko digle ci alxuraan ak julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak wax laa ilaha illa allah wala kalimatu allah ñetti anaasir mooy yi nga xam ne wird yëpp foo dem nag nga ko fekk am ci ciy li yeneen yi aaye alxuraan wird wu ne ak yi nga xam ne moom la jagoo kon bu ñu waxee ci tasawuf ci gàttal rek wird li ci ëpp ñu ngi ci jublu wird bii nga xam ne li ko composé mooy azkar ay azkar mooy ay ay tudd yàlla yu ñu dajale ci istighfar ak salaatu na nabi ak tahlil ak yeneen yi ne dem wird woowu nag ñoom gaa yi tasawuf yi dañ ko jàppee ci usuli tasawuf muy cosaani tasawuf dañuy jàpp ne ci la bokk suñ tubaa gis nga bi muy lim cosaani tasawuf wax ne fa li tasawufi usulun tu'rafu tisata ashiyaa lada man yarifu awaluha talaazumu lkitaabi wa sunnati lmuxtaari di sawaabi wa tarku lahwaa'i wa tarku lbidaci kadaka tabjilu lxushuyuxi lxushaci ru'yatu acdaarin likulli lxalqi idaamatu lwirdi li wajhil xaqi mooy bokk na cosaani tasawuf usul yi mooy saxal wird woo xam da koy saxal bis bu ne boo waxtoo jotee nga def ko loolu dafa bokk ci waa tasawuf li nga xam dañ ko bokk seeni cosaan dañ ko boole seeni cosaan wird woowu nag ni ko sëñ bi waxee wa asluhu l waxyu aw il ilhaamu yaxussuhu bi ahlihi salaamu bisaatuhu kitaabuhu lmunazalu mufarriqan wal atharu lmusalsalu moy foko fek ay tudd yàlla lay doon yo xamni yàlla bokay xamal ab yonant muy wax lay doon wala muy ilham wax ne wax ab yonant lañ ko def waaye ilham moy gaay yu bax yi den yàlla xamal ci xéet njariñ yu nekk ci yenn tudd yàlla yi lépp nak du génn alquran ak jeexiti yonante bi alayhi salatu wasalaam ak nit yu bax yi ñom azkar yépp kon man nañ ne zik zikru rek mooy gàttalu wird zikru nag ba dañ cee dugg faw ñu leeral dem njariñ li nga xam ne moom la am gëdd gi nga xam ne moom la ko suñu borom tabaaraka wa taala jox xam ngeen ni alquran dañuy wax ne zikru kasiran la sant ci alquran yaa ayuha alladina amanu udkuru llaha dikran kasiran wadkuru llaha kasiran laallakum tuflixuun laqad kaana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فوق وقت القرآن وذكروا الله كثيرا فوق تبدي القرآن مم ذكر رك بريجي لتي عليك كثيرا مهنا بري جامع اليب ودلنكو ودل أب ليميت ولا أب wala heure boo xam ne dañuy aaye ku ko ca def ba mu des tudd yàlla tudd yàlla amut waxtu amut limite te suñ borom lu mu gën a bari moo ko gën a suñu borom sa wax na ne leeru ngëm ngëm yàlla gi lay may itminaan mooy dalu xel ak xol ak xol bu mucc ci mboolem sikk yépp li koy maye suñu borom wax na ne mooy dikru moom alladina wa tatma innu qulubuhum bi dikrillah ala tatma innul qulub kon ci alquran dañuy gis ne suñu boroom jox na gëdd tudd yàlla yonente bi joxe gëdd xadis yonente bi ci dugg da gis ne suñu borom yonente bi alayhi jox gëdd lool tudd yàlla yonente mas naa wax bis ne sabaqal mufarriduuna xadis bi imaamu muslim nag li am ñu bare bare mu xadis bu siiw bu ñëpp xam mu wér lool mas naa wax ne sabaqat mufarriduuna ñu ne ko waaw ñoo ñooñu ngay wax mooy ñan dafa wax ne ñooñu raw nañ ñu ne ko ñooñu ñooy ñan mu ne addaakiruuna allaha kathiran waddaakiraatu ay riwaayaat yu bari la am na ci benn riwaaya boo xam ne wax ne al mustahdiruuna bi dikrillah mooy ñi nga xam ne waxtu wu ne ngi tudd yàlla ñooñu mooy ñi nga xam ne raw nañ ñu may ñoom am na ku ko mas a laaj moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lislaam yi ci nekk ci ay xeeti jaamu yàlla ak yu baax dafa bari ma bëgg nag nga digal ma ci loo xam ne dama ci mooy yonente bi ne ko laa yazaalu lisaanuka ratban min dikrillah fexeel ba sa làmmiñ wi na tooy xipp waxtu wu ne ci ngir tudd yàlla waxtu wu ne sa làmmiñ nay juga ka dal ci tudd waxtu wu nekkal di tudd yàlla rek yonente bi sa àgg na ci wax ne lii musle ci mbugalum yàlla ëllëg amut lu ci gën a mën a musale tudd yàlla maa amila aadamiyun amalan anjaalahu min adabillahi min dikrillah yëmut ci loolu mas naa wax ne ala uxbirukum bi xayri amalikum mooy xanaa duma leen xibaar li gën ci li ngeen di jëf wa azkaha inda malikikum li gën a sell fa yàlla nga xam ne yàlla moom moom la jàpp li gën a sell ci li ngay def yow ci jaamu yàlla وارفعها في درجاتكم لغنا ييكاتيكو تي اي درجه غنا غاو تي ييكر ساي درجه فصول بروم تبارك وتعالى وخير من انفاق الذهب والورق لغن نين يور علال ديكو ديبانسي تي يون يالا دي دي جوخه لول ليكو غن وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم لغن جهات تي يون يالا داجيك نون يالا دي تيور سيني baat ñuy cor sa yéeni baat yéen jullit ñi loolu la ko gën saxaaba yëpp ne ko loolu kay bëgg nañ ko xam mu ne leen dikrullahi taala tudd yàlla subhanahu wa taala ak di ko fàttaliku tudd yàlla buñ ko waxee danañ ci ñëw jubluñ ci rek làmmiñ wuy doom ak a dikk lañ ci jublu dëgg dëgg mooy xol buy tudd yàlla waaye sa xol li fekk mënoo koo tënk ci muy fàttaliku yàlla ak di ko bàyyi xel faw sa làmmiñ ngay tënk ci loolu ba keroog yàlla dina tawfeexal ngay mën a am xudurul qalbi benn waaye mas naa laaj yonente bi alayhi salaam ne ko ñii jihaad ku ci ëpp ab yoon mu ne ko aktaruhum lillahi dikran ki ci ëpp lu muy tudd yàlla moo ëpp ab yoon gën a baax la jëf ci ñiy jihaad mu ne ko waaw ayu saimina mu ajran ñii woor nag ku ci ëpple ab yoon gën ko caa màggale mu ne ko aktaruhum lillahi dikran ki ci ëpp lu muy tudd yàlla rek moo gën a baax le koor gën koo jagle ëppale ci ab yoon mu laaj ko ay ñii ñiy julli ba tey ku ci ëpp ab yoon mu ne ko aktharuhum lillahi dikran ñii natt asaka ku ci ëpp ab yoon mu ne ko aktharuhum lillahi dikran ñii aj màkka ku ci ëpp ab yoon mu ne ko aktharuhum lillahi dikran ñii joxe di sarxe ngir yàlla ku ci ëpp ab yoon mu ne ko aktharuhum lillahi dikran lu ko lu mu laaj rek mu ne ko aktharuhum lillahi dikran looy def ci lu baax boole ko di tudd yàlla wax wu yow ya ëpp yoon ñe ca des ñëpp ña ko deful sayidna abubakar ca jotaay ba la nekkoon daal di wax ne ya aba hafs dahaba dhakiruna bi kulli xayrin mais boo ñu xam ne de ñii tudd yàlla yóbbu nañ yi wépp ndax jiitu nañ ñëpp sayidna abu hafs al faruq sayidna omar nekkoon ak wax nga dëgg ajal loolu imam ahmad moo ko li ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon tudd yàlla noonu la mel ci alquran noonu la mel it ci sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ay yi ma wax ni ak hadis yi ma wax ni man na ci dégg ne tudd yàlla kon lu l'islam santane la yemul ci lolu képp ko xamni bëgg nga ngeerumul yalla amul ci gaaw gën gaaw tudd yàlla ba dégg na ci ay yi ñu wax ni ak hadis yooyu ne tuddi yalla moy ruuxuk jaamu yalla yépp dégg na ci itam batay ne tudd yàlla la mëna may xol bu jakk buy fàttaliku yàlla waxtu wu ne boo bëggee booy julli sa xel di teewlu lépp loo gis mu fàttali la yàlla loolu amul lu ci gën a gaaw tudd yàlla doy na rek tudd yàlla li ci ne mooy li yàlla wax ne fadkuruni azkurkum maanaam boo may fàttaliku man yàlla man it maa ngi lay fàttaliku beneen xadis bi moo ko gën a leeral so toge yow kesse di ko yalla yalla ci moom mu mag moom ma nga lay ko yow jam bi nga xam do tous ana jalisu man dakarani loolu dara gën ko rëy moy bo toge di ko yalla yalla mu mag mom ma nga lay ko yow di la baye xel neena so toge ci bir mbolo tuddu mo ma nga fatli ko ma ma ngi tok ci mbolo mu gën mi nga tok di la fatli ko mané ci loolu suñ bi dara gënu ko rëy damay wax lu bare bare ne ñi nga xamni aduna rek leen ñor ko ci ne sous préfet bi ni dalaa fonk ba waxtu dalay fàttali day bëgg soo ne ko di nga am préfet bi nga xam ne moo nekk Mbacké moom moo la tudd moo lay fàttaliku ni day gën bëgg soo dee ko nag bi nga xam ne moo jiite région bi moom moo la moo fonk loolu di la fàttaliku nii day gën a bëgg laa lay wax soo dee ko ministre bi moo la fonk ba di la <laughs> fàttaliku mbég mbégte bi xam nga day gën a yokk boo ne ko président bi nag kooku moom moom moom waxtu la ci mbégte lay lay te loolu mbiri àdduna te ci wàllu yàlla gi mas na ko misaal fi mu koo ci ne ci misaal xalifa bii fi ne dalaa fonk ba di la fàttaliku di la bég di la tudd day bég bég ti mu kawe soo nekkoon ak kenn ci wàgg Sëñ Tuubaa moo la fonk di la tudd di la fàttaliku kooku moom mbégteem day gën a ma ci bopp nag moo la fonk di la tudd di la fàttaliku kenn du xam mbégte moom ma mi am boo ne ko rasulullahi mustafa sallallahu alayhi wasallam xam nga day gën a bëgg yàlla mu mag ma nag nga xam ne moom boo toogee di ko fàttaliku nii moom mi ngi lay fàttaliku di la tudd bàyyi la xel ànd ak yow nag nee na maaya boo xam du bokk ko geneen maaya yi kon tudd yàlla dara gën a ko rëy moo tax cheikh ibnul farid mas naa fekk a Sahrawardi ca aj ga mu toog di ko yàlla di tudd yàlla Sahrawardi nee na booba maa ngi xalaat sama diggante ak sama borom jàq ci lool tiit di xalaat nan la ma yàlla nar a def ëllëg ndax li may woote ak fiñ ma teg te ma xam sama bopp ak sikki yi ma nekk nee na mu jëkkee bett ga bett ko rek moom ibnul farid ne ko lakal bisharatu faxla ma alayka faqad dukirta samma ala ma fika min iwaji mu ne mu mu daanu jël moom zahra war de mooy dana koy war ngaa bég ndax fi ne yàlla bu mag moom ma lay fàttaliku di la ak li nga nekk ci ay sikk neena mu daal daanu jëm kon tudd yàlla loolu mooy gàttal tudd yàlla itam bokk na ci li nga xam ne mooy tax yàlla bokk na ci lii tax yàlla nongu sag ñaan loolu mas na ko dégg ci sayidna Moussa ba muy ñaan rabbi sahli sadri lam ko daanale mooy kay nu sabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran sayidna Zakaria bi mu ñaanee ak njaboot suñu borom tabaraka wa taala wutal boppam mandarga ñetti fan yoo xam du ci wax du ci wax ak kenn suñu borom da ko jàttagal ne ko wadkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal ibkar mooy ci la ñuy dégg kon ne tudd yàlla am na relation bu mag ak yàlla nangu sa ñaan borom xam-xam tasawuf itam noonu lañ fonke kon wird ci gàttal rek imaamu shafii al imaamu shafii cheikh cheikh mohamad al yadali ci xaatima tasawuf wax na ni imaamu shafii daana wax ne man ahabba أن يفتح له قلبه وينوره فعليه بترك بترك كثرة الكلام فيما لا يعني وتجنب المعاصي ويكون له ورد في الأعمال فيما بينه وبين الله تعالى ku bëgg yàlla defal فتح fatxu ci sa xol leeral sa xol na nga moytu da koy doxale sa diggante sa borom faratal ko waxtu ne nga di ko def muy ak jaamu yàlla go xam da nga koy def loolu imaamu Shafii moko da wax cheikh sëñ bu mag bi nga xamne mo gàttal waxe gaay yi jitu won yeb man nañ ne lim wax ci masariku jinaan rek doy moy amma idha jahilta sha'na al wirdi fa'lam bi annahu 'azimul qasd mawqi'uhu fi ash shar'i min ajal mawaqi' al qurb inda al kulli mooy wird su fekkee ne xamoo ko dëgg-dëgg na nga xam ne mbir mu rëy la mu màgg ak jublu la te itam place bi mu am ci sharia mi ngi bokk ci place yi gën a kawe ci place yi nga xam ne ñooy tax nga jege sa borom tabaraka wa taala Cheikh Ahmad Zarruq ba tey loolu la wax moom dafa wax ne sax wird bisaatul ubudiyya allati yatarattabu alayha thawaabu fi daari al axira بقدره ولأنه مفتاح الفتح على حسب حال المتوجه كم نيغا فونك وردي نون لا سا فتح دي دوي فتح نك خاينا جينن وقتان لي دون وايي تي مصالحات صوفيه لا بوك موي لي گنا كاوي تي تي لي لي لي لي لي طالب بي دي ساك و يالا اوبيكو خلام اخ خمم اخ اخ خلام مايكو da nga am ak cofeel gu kawe ci xolam ak yeneen ak yeneen ak yeneen cheikh abu talib al makki wax na ci qutul qulub ne mudawamatul awraadi min axlaqi al muminina wa tariqul aabidina moom rek mooy yoon wi nga xam ne ci la jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi dëgg-dëgg di jaar ngir dem ci seen borom imaamul ghazali wax na ci ixyaa ne gaañu baax ñi lii may waaji wax ne dañ koo gis ak seen seen bëti xol wax ne su fekkee doyu la nag dinaa la ci indil tegtal yoo xam ne ci alxuraan lay jóge xadis nañ gis mooy lan mooy nit ki lenn rek moo ko mën a may ak mucc mooy mu taseeg suñu borom tabaraka ko taala ëllëg suñu borom gërëm ko loolu itam li koy maye lenn rek la mooy bi ngay faatu nga nga fa nga nga deewaale bëgg yàlla gu tar ci sa xol ak xam yàlla bu wér ci sa xel daal di wax ne itam bëgg yàlla li koy maye mooy saxoo tudd yàlla loolu rek moo koy maye waaye nag tudd yàlla ba tey ni ma ko waxee léegi borom xam-xam tasawuf bi dañ koy seetle ñaari xaaj am na lu ñu tudde zikrul ujóor mooy tudd yàlla koo xam ne yaa dem rek jekke gi jël ko kenn joxu la ko tudd laa ilaha illallah nga jekke gi naa ci saxal nangam astaghfirullah naa ci saxal nangam yu demee noonu wala jàngal xuraan dinaa ci def nangam par bis loolu mooy tudd yàlla yi nga xam ne yaa ko jëlal sa bopp ak tudd yàlla gi nga xam ne nag ab sëriñ la ko jox loolu nag bu ñu waxee wird moom lañ jublu daanaka ci biir tasawuf لولو بني جواهر الحسان في تفسير القران للامام الثعالبي نتل نتا ابو عبد الله محمد بن محمد الانصاري الساحلي واخنا ني تيرم بيم تودي سول السلوك واخنا تي ني نياري خيت ذكر موام ذكر العام اك ذكر الخاص ذكر العام مو ذكر الاجور موي nga jekke rek di tuddu yalla ci ay xéttu yalla yi xam lolé da nga ci amub yoon am ci tiyaba waye nak secret yi nit nit yàlla yi nga xam ne moom moo moo dëxëñu ci biir yoonu tasawuf nga xam ne moo gaaw ci rataxal sa diggante ak sa borom ak xam xam yàlla ci xam goo xam ni mooy gëm ko bu wér rek ak it gën ko bëgg bëgg ko tar ci sa xol yooyu noonu li koy mayee neen la ci gën a gaaw mooy wird mooy dikrul xudóor xudóor la ko tudde mooy dikr boo xam ni dañ la ko jox loolu mooy gàttal gi neen loolu moo tax moo gaaw ci may la maarifa billahi subhanahu wa taala moo gaaw ci setal sa bakkan ak sa xol ci bépp jikko raxas ci bépp jikko bu bon dugal ci yow bépp jikko bu baax moo tax kon nga gis tariqa yépp fonk li ñuy wax sanad mooy wird nit a da koy jox kookee am kook ko jox kookee am ku ko jox ba ci yonente bi alei salatu wasalaam ñoom mu tasawi fay dañuy wax ne ndigal loolu li muy jariñ mooy dalay jox maanaam lislaam lépp luñ ci def dafa aaje mu jóge ci yonente bi alei salatu wasalaam xadis bu ne dañ koy nett li wutal ko sanat bu dem ba te rasulullahi sallallahu alayhi wa yi ci des yëpp noonu wérdu itam lu war a jóge ci yonente bi alei salatu wasalaam la doon mu jox ko genn kilifa koo koy jox ko keneen koo koy jox keneen ba mu agsi ci nga xam ne yow kilifa gi joxu na ko waaye Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox loolu lañ ci ñoom it dañuy wax ba tey ne leeru suñu borom gépp mën nañ ne da ko da koy sotti ci ruux ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nag ñi ko gën a jege ñoom lay imdaat ci leer googee ñooñu itam daanaka mën nañu gàttal gi mooy borom nit yàlla yu mag yi borom tarixa yi ñoom it ñooy kenn ku ne yaay imdaat ña la féete suuf ci sa waa kër loolu mooy gàggal gi loolu dañ koy wax nga xam ne léegi bu ñu la joxee isnu jox nañ maanaam connecté nañ la ca leeru googee yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu waxi mutasawif yi lay doon du lu ñu munaaqasa ci li may xekar waaye gàttal gi mooy daal isnu ñoom dañuy jàpp ne mënta ñàkk ci ci ci ci ci ci wirdu woowu boo seetee ba ci téere yi ku mel ne ibnu xajarin haytami ci alfatawa alxadisiya wax na sax ne من يريد التبرك يجوز له الأخذ من مشايخ متعددين ومن يريد السلوك والتربية يحرم عليه الخروج عن شيخه كيف كو خامني باركال رك نغا مانغا فو گيس ويد ديجل ديكو جيفانيكو تي لول نك مانا لا يدي جيخي نعم، آه، لو خامني مانا لا ياق ياق مانا لا ياق صاح نك ناخ ميد ويد ميديكامان دو لو ني فاجو لا لو خامني boo def pharmacie boo dem loo gis fa ci loo garab boo gis jëfandikoo ko mën ngaa faatu moo tax day aaje ab docteur jox la ko docteur bu xam mbirum pajit lam la ca waxit nga di ko defee nam nam la ko waxe waaye moom dafa wax ne boo bëggee sóobu ci yoonu yàlla ak tërbiya ya faw ab sëriñ nga am ko te bul ko fa bul ko booleeg leneen loolu kon moo indi tariqe sufiyanke yi loolu moo indi mu sosu xam ngeen ne ci juróomeelu siècle ak juróom-benneel ba ci la tarixa yi tàmbalee sosu ci lañ xam alqadir ya feeñ cheikh abdul qadir jeylaani sos tariqa boobu ya feeñ cheikh ahmad ibnu aliyin rafaai feeñ sos tariqa boobu ya feeñ cheikh abul hasan sadali sos tariqa boobu biñ demee ba fukkeelu xarnoog ñaar douzième siècle ci la ya feeñ ci Cheikh Ahmadou Tidiane yi sos ko tariqa boobu bi ñëwee ba fukkeelu xarnu ak ñett nag am na yeneen tariqa yu bare bari yoo xam tudd ma leen lii mooy lépp solo ak liñ gën a xam noonu ci ay tariqa rek moo tax ma wax yi bi ñëwee ba fukkeelu ñett nag ci la al bi nga xam ne moo dajale mbooleem la tasaara woon ci yeneen tariqa yépp شيخ بشير وحني فجمع الكل وزاد وارتقى بمحكم الكتاب نعم مرتقى فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخافوا كبتا موي بولم طريق يب من تي من تي بير اك مريد من تي بير طريق مريديه الطريقه جامعه لا سيني وخني هذه طريقتي وفيها المع ترائق القوم الذين جمعوا موي مشارب يقل دجالي wirdu murid sax boo gisee mboolem yi ñuy def ci yeneen tariqa yépp ma ca biir li waa Tijaani def dina mi ci biir Maaxuus al wirdul Maaxuus li waa Xaadir def yëpp mi ngi ci li waa Saadaliya def lépp mi ngi ci loolu dama ko du ma ci sori dama koy bàyyi sëñ euh, sama mbokk mi mu ñëw ci bu soobee yàlla sëñ incha waaye li ma bëgg wax rek mooy bo setlo tariqa yooyu nag kenn ku ci ne dafa fonk ne wirdu bi ñuy jëfandikoo ak ni ñuy jëfandikoo tarbiya gi faw ñu ñu mu am càll la boo xam ne day dem ba ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam fi mu ne boo demee ci tariqa qadiriya Cheikh Abdul Qadir Jeylaan dañ lay wax ne la mi ngi jëlee tariqa ci Abul Wafa al halawani Cheikh Abul Wafa al Halawaani jëlee ci Cheikh Abu Muhammadin Sambaki mu jëlee ci abu bakrin shibli kooku jëlee ci al imaamul junaydi muy abul qasim muhammad ibnu junaydi al xazaaz mu jëlee ci abul xasan sirri ibni muxlisin saqati kooku jëlee ci maaruf ibnu fayrusin al karxi mu jëlee ci abu suleyman daawud taayi kooku jëlee ci habibul ajami mu jëlee ci xasanul basri kooku jëlee ko ci sayidna aliyun karama allahu wajhahu sayidna ali jëlee ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy seen silsila ñoom qadri keneen ku fi jël xaadir itam day amaat silsila bu dem ba ca Cheikh Abdul Xaadir Jeelaani Sëriñ Tuubaa gis nga jamono yi muy nekk xaadir gis nga ci la way ak silsila xaadiriya moom kam jële muy baabul shaxsidiya la ko tàmbalee ba nam àgg ci Cheikh Abdul Xaadir Jeelaani boo demee ci saadaliya masala ñoom ñoo gën a gudd silsila ñoom dañuy wax ne Cheikh Abul Hasan Saadali mi ngi jële ci Abdus Salaam ibnu Masis mu jële ci Abdurahman al Madani kooku jële ci Taqiyuddin kooku jële ci Faxruddin mu jële ci abul xasan abul xasan jële ci alqutbu nuuriddin mu jële ci alqutbu taajiddin mu jële ci alqutbu shamsuddin kooku jële ci zeynuddin alxazwini mu jële ci ibrahim albasri ibrahim albasri jële ci alqutbu ahmad ibn almarwani mu jële ci alqutbu saad said kooku jële ci alqutbu saad mu jële ci alqutbu fatx saud kooku jële ci alqutbu saidin alxazwani kooku jële ci abu muhammad jabir kooku jëlee ci alxasan ibnu aliyin karamallahu wajahu alxasan ibnu ali jëlee ci baayam sayidna ali ibnu abi talib karamallahu wajahu mu jëlee ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy seen silsila tijaan yi itam noonu xam ngeen ne cheikh ahmad tijaan yi njëkk naa jël a tariqa al qadiriya ginnaaw mu jël a tariqa siddiqiya ginnaaw mu jël a tariqa nasiriya kenn ku ne ci borom tariqa yi nag kenn ku ne gis nga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu talqin la yeesalal la wirdu wo xamni man na naa bañ a bokk ak wa nga doon njëkk jëfandikoo nga diko jox say gaay ba ci borom xam-xam ci dess yépp fi ne cheikh ibnu kasir dañ wax ne jëlon na sadaliye ci najmu din asfahani dañu fonk ñom ñëpp ku ci mësa dugg ci tariixa rek jël nga jël jël nga wirdu ci sanad cheikh ibnu taymiya wax na ne ci am na ci dundam masoon na jël at tariqa al qadiriyya cheikh Muhammad ibnu Abdullah, wahab mooy ñi nga xamne sax ñoo gëna ñom ñi leen top ñu gëna a mën a contre affaire wérd ku mel ni Mouhamad ibn Abdul Wahab day gis ne wax na ne ci ak dundam masoon naa jël a tariqa naqshabandiya tariqa naqshabandiya dégg naa Mouhamad sayyid Amadou Al Bouti di wax ne moom la jàpp ne moo gën a jege sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ci tariqa yëpp Mouhamad sayyid Amadou Al Bouti moom sax gis nga moom jëloon na wirdu xisbu imaamu nawawi bii nii joxoon na ko sax xaafidul asar yaakaar naa bu bu ma jiwul ci lim wax kon noonu lañ ko fonkee waaye nag foofu na ngay xamee noonu li ñu am ni noonu te xamuñu ko mooy version bi mujj nusxa bi mujj ci leeru yàlla subhanahu wa taala ak ci tariqa Sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamad Wuld Ahmad Misk nettali na ma ne daa Ahmad Wuld Dees mu nettali na ko ne Sëñ Tuubaa daana wax ne lan yatuula bikumu sanad ana wax di mhm. mooy yéen seen sanad du gudd man rek maa jëlee ci Moustapha jox leen alayhi salaatu wasalaam moo tax nga gis sëñ sëñ bay jaxate ñi nga xam ne dawel digal ci biir murid gi dafa am ñoo xam ne dawel digal ay borom xam-xam lañu waaye dañuy xaw a daanu le rek nga xam ne dañuy wax ne moom lu dul lii rek sëñ bay da nga gis day wax ne wala tara fi biladillahi ajmaiha man yaarifu alxaqa illa wirdahu axada koo fi gis moo xam yàlla ci jamono jii nii da nga wirdu sëñ Tuubaa la la yor xëy na loolu li ci jublu mooy ginnaaw moo dajale mboolem leeru yàlla gi nga xam ne moo tasaaroo woon ci yeneen tarixa yëpp xëy na ku ko jël moo gën a gaaw amee ci maarifa billahi kon loolu ci gàttal gi mooy cosaanu wird ak tarixa yi niñ ko fonkee day gis ne kon jox nañ ko jox ko yitte booy bokk ci tarixa boo ñëwee ba jaayanteeg sëñ bi nga jaayanteel tarixa bu man doon dañ lay jox wird wax la ñañ ko jële yow nga jël nga ci moom nga ci ci moom kii nga ko jële léegi nag ndax suñ tarixa bii mook tarixa yu njëkk yooyu ñoo yem ci wàllu googu loolu sëñ sëñ Isaa moo ci ñëw bu soob loolu waxtaan sëñ Isaa waaye tarixa yu njëkk yi daal ni nii foofu lañ ko tegoon bu ko defee itam wird xam ngeen ni tarixa yëpp boo demee dañ ko wutal waxtu waaye li waxtu wi ñu ko wutal it ci alxuraan lañ ko teg ak sunna si yonente bi alei salatu wasalaam ci gàttal rek li ci ëpp ginnaaw fajar lañ koy def suba ba keroog jant bi fenk برينغون غيناو تاكوسان با تيبس لولو نينكو جيلي تي القران سبحانه وتعالى واخي سن سن بروم تبارك وتعالى سن بروم بام يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه دفا بكره واصيلا موي سوبا ديغوم اك نغول امنا فنن فوم واخني يدعون ربهم بالغداة والعشي امنا فنن فوم واخني وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار أمن فين في وحنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كن فوف لن جوغي وقت يوي فوف لن كجري ودل كن كي ودل وقت دوتنا وقت يوي دنج في آية كن كجولي مثلا في آية كجولي ديكو سيب أك ديكو أرام ليلك تي تي بني بجان دمي فين كم نكو فوق هاي وقت نيوم نك نيو بني نيك سين وقت بني يقدر تي وقت مودخ وقت يوي نيو دي نيو دي تدف خيتي

ma julli suba toog fa ma jullee di tudd yàlla di tudd yàlla ba jant ba fenk moom laa gën a bëgg moom a gënal fuuf yor ay fas di ko lokki ak di ko dàq ak di ci jihaad ci yoonu yàlla diir diggante boobu diggante bi bi ma jullee suba ba keroog muy jant bi fenk xadis boobu ñëw na ci ay riwaayaat yu bari riwaayat Abu Daawud xam nga dafa wax ne لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل def loolu muy toog ci ginnaaw boo jëlee suba di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma gënal goreel ñeenti jaam am na feneen foo xam dafa wax sax ne la an ujalisa qawman yadkuruna allaha min salati alghadati xata tatlua ilaya mimma talaat alayhi shams loolu moo ma gënal mbooleem suuf si ak li nekk ci kawam mbolem li jënd bi fenk ci kaw moy lool aduna ak li ci ولا أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. نقول جيتم جنا بنجل تبصر. بكر جنت بيسو. نك فو دي تودي على مو مجنون. قرر لما تجرم جت جاي جام. ديت كل واحد إثنا عشر ألفا. لولو من إمام البيهق نبلنا كشعب الإيمان بوجو جمع الجواب جوامع بإمام السيوتي الكنز العمال المتقل الهندي خير نيني تودي على إدام أنا مجين كوي دفن تي القرآن لين كوي جلي سن بارو مغني الذين يذكرون على قياما وقعودا وعلى جنوبهم أفي مغني فإذا قلتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم موي بل نيخي توب بل نيخي تاو تخو بل نيخي تدو waaye nag sëriñ bu ne mooy wax ay taalibeem na ngeen koy defee bii mu ne toog leen ñii mu ne leen taxaw leen di ko def ñii di def neen waaye anam guñ ko mën a defe rek fekk na ci ci ci alquran lañ ko jëlee ak ak ak sunu si yonente bi yonente bi soxna Aïsa wax ne kaana yadkuru allah azza wa jalla ala kulli ahyaanihi mooy anam gépp def na ko tudd yàlla moom su su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy gàttal wird mel na jël naa waxtu bëggoon ma ag ci meññat yi nga xamne mo nek ci wird waye bu ma ko don gatt ci benn minute rek señ bi nga may ma lolu moy wird ñom borom xam-xam tasawuf bi dañuy wax ne ki koy saxal ni yalla dana sotti ci xolam ak xelam amna lu mu ci tokkal ak lu mu ci rotal lu ñu tuddi al warid waarid itam li rot ci sa ak li ak sa xelit ñaari xet la am tuddi al ak ruuxaanil malaki mooy la jóge fa yàlla te malaayika mi nga xam ne moo dend ak sa xol di ko ci sotti wala sa xel waaye nag seytaan itam yàlla may na ko kattanu xolub doomu aadama bu ne am na seytaane su su ko jege soo xam ni léeg-léeg mu toqal ca léeg mu toqal ca xel ma ay xalaat moo tax yooyu des ci sukkandiku waaridul malaki al waaridul malaki wala al ruuxaan yi niñ koy xamee mooy day sedd guy am nag bànneex bu rëy bu la dikkal sa xol te du am benn métit bu muy àndal loolu mooy liy toq ci xol lay toq ca xel nag ay xalaat lay doon yoo xam ne mën na laa jural mbégte mu rëy wala njàqare lu metti booy boo dee boo dee kuy doog a sóobu ci yoon yàlla loolu la ñu tuddee rajaaw ak xawfu boo soree ci yoonu yàlla ñu tuddee ko xabdu ak bastu wute na maanaa yi wute na lool waaye yooyu toq nag ak xalaat yooyu dina dikkal lu lu yomba lu lu leer la mooy xalaat yu baax dañuy wax ne boo ci bëggee xam lii li la dikkal nii ca yàlla la jóge wala du wala du ca jóge dangay xool ci lan la la gën a jëmee su la gën a jëmee ci njub ak gën a gëm yàlla ak gën a baax ak gën a def lu baax xamal ni ak gën a dundal lislaam ak gën koo dund xamal ne loolee kat xalaat boobe wala loolee toq sa xol yëg-yëg boobe ci yàlla la bàyyi ko kon jëm yëg-yëg bi kese rek doo ci sukkandiku yooyu toog ci xol nag mooy raxas sa xol ndànk-ndànk muy leeru tudd yàlla googu ba jikko yu baax yépp yi nga amoon yu ci yu bon mu dindi ko di def ci yow jikko yu baax wirdu kon loolu mooy gàttal gi Sëñ Tuubaa daana wax ni soo ko jëlee nag na nga ko fonk wa in axadta al wirda faltubajjili umuurahu xayra al masaaya tanali wa alam bi anna kasrata al ujuuri bi qadri lawraadi ma al xuduuri soo jëlee wirdu nag na nga koy fonk boo ko defee da nga am ngën ji ay ngëneel te itam say tuyaaba ak say ngëneel ak sa daraja mi ngi toll ni kem li nga def ci ay wërd rek soo demee ba mën a wërd itam tàyyal ci mbirum wërd itam Sëñ Tuubaa nee na bul gàllankoor gaa yi bëgg a jël wërd mooy wa in fa in kasilta an umuril wirdi fala tarum inkaaraha lil xaqri fala yuxafifu umuril wirdi siwa xasuudi duuqilan wa xaqri fa in ajasta عن ورود المولد فلا تعق عنه اخي من احد قلت يا كان جل ورد بورم تاريخ يدم نسيج بني انا ورد يبنى نغا خمنا يالا اذ كلهم قطعا على السواب نيب يدم نيو وات جيما تي يالا كون بول تي ريتان كين بول تي ديغا كين ماغي جيغ لو جي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته